presse bi di ko wax tous les sénégalais en parlent motion de censure dafa mel ni c'est <laughs> mm-hmm. xam nga du benn. Mm-hmm. bi ye bi defoon. ak bi du ah, benn. bi c'est une volonté politique. Mm-hmm. volonté populaire. la population a choisi. ñun nous sommes les représentants du peuple. tey waruñu dem à l'encontre du peuple du peuple surtout que ñii toogaguñu. Mm-hmm. ki ngay defal mooy chance mooy ki nga xam ki géré donc il vient d'arriver il faut accompagner le peuple la volonté du peuple kenn mënul wax résultat yi nii la demee scientifiquement mm-hmm. mais xëy na am na lu amoon ci yaakaar mm-hmm. mais tey si l'Assemblée nationale va à l'encontre de la volonté populaire yaa ngi doon beneen beneen affaire mm. deuxièmement mooy nous sommes nous sommes tous des Sénégalais mm. soyons positifs loolu laa gëm dama. ah mais ñoom ñoo ko brandir ah. si ñoom la njëkk a génne. si ñoom la njëkk a génne sax c'est Sare dafa def xam nga erreur de la. parce que Sare genre menace la def. Hmm. waaw menace la def menace loolu sax baaxul c'est pas élégant man d'accord ma Sare. Hmm. am na yoo xam ne doo menacer nit ki. Hmm. Ablaye Wade moi j'étais là avec la législation de avec euh, le. la neuvième dafa am neuvième neuvième législation. bu Ablaye Wade. waaw waaw bi ngeen di ñëw ba muy ñëw waaw. Ablaye Wade bu ñuy dusul. Ah, man mooy son premier mandat député. Mhm. mais Ablaye Wade il attend seen nag attention dissolution dafa am eh, am na leneen lu ci nekk de. Mhm. lu compliqué. Mhm. parce que quand tu dissous le député quand il est élu. pour ça pour cinq ans sa pension. oui. tu dois cotiser pour le reste de, de, du mandat cinq ans le député a des engagements financiers par rapport au mandat. Mm -hmm. pour son équipement et tout. mais da ko da koy da koy remboursé. dafay pension cinq ans yi. di nga rembourser prêt yi nga def lii di def lii. doo ko dissoudre. Ah. non c'est-à-dire même bu ko nga wax deuxièmement aussi fi réew mi toll avec ak la loi de finances bi ñëw nii ak li ñu bëgg a def pour le pouvoir d'achat amatoo recette yi parce que la déclaration sur les risques budgétaires avait prévu. Mm-hmm. que dina am impact ci ci budget bi. te sept sept cent mille milliards mënatul nekk. Mm-hmm. parce que ñoom joxewoon na ne indice yi nga xam ne bu amee. dootoo mun a atteindre objectif bi c' pas l' argent que les gens volaient dafa am lu ñu prévoir ne bu ay yi demee noonu on va perdre des recettes recettes yi nag recettes perte nag war ko mën a maintenant compenser maintenant pourquoi satisfaire la la demande sociale. Mhm. yi am yooyu yëpp ak réforme yi ñuy war a def yëpp. Mhm. parce que aussi falu neex na. Mhm. mais falu fekk a fi problème musiba la. mu dolli ci problème. assemblée nationale les textes sont obsolètes. wala mm-hmm. retraite parlementaire la loi c'est 1959 les députés ñu ngi doon fayeeku seen pension sur une loi de 1959 où le où yow salaire dem ba 1 million 3 1 million 300 ci pension wu 300 000 te c'est l'assurance AXA qui en bénéficie il faut avoir 55 ans pour percevoir cest à di cotiser di leen tubaab bi ñuy lekk rek quand on a réformé maintenant. loolu moo tax nit ñi y a un problème d'information dans ce pays. c'est ça c'est un problème de te ñuy chance bi ñu am rek mooy nañu may 2024 bi ñu changé texte yëpp. ñu réformer réformer yëpp booy élection nga élection 2025 nag waxtaan ak kaay sax boo mën a couplé élection nga couplé ko. nga couplé ko toogaat 4 ans.